mu ngi dool tolloon ci jàngale ker gu yàqu googu nga xam ne mooy ker gi nga xam ne dafay ànd ak zawal gi dégg nga <coughs> waxoon na ne ker googu booy kenn konte ker gi toll naa yoom léegi doo ci doo ko ci konte waale mu ne waqat yaxtalifu dana wute zillu zawali kerak tusubaar ga bixtilaafil azmina ci wuteeg jamono gi bu tusubaar jotee ker gi mu ànd ak day wutee kem jamono yi ni ñu wutee fa yabluqu dana jot fii zamani chitaay si jamono nawet ak aqdaam fukki ndëggu jamono nawet buy jant bi di jàng jëm xarfu dana àndaale fukki ndëggu loolu bu ko ci kontaale xam nga loolu fi naa bëri kii xeg ci weeru kii xeg loolu weer la ci weeru xibti yi mina shuhuri xibti ci weeru waa xibt ci misra weeru kii xeg ci jamono nawet nee na foofu ca misra kër gi dana dem ba fukki ndëggu su ma yàqu su muy commencé fi naq si si wàññeeku fayakunu mu nekk tisaat aqdaam juróom-ñeenti ndëggu fi chahri Touba ci weeru Touba juróom-ñeenti ndëggu lay doon wa sabaatu mu nekk juróom-ñaar fi chahri Amchir ci weeru Amchir juróom-ñaar lay doon wa hakaza naka nii la ilaa yabqa ba mu des minu ci moom qadamu qadru qadamin lu toll nii qadru qadamin waaxidin lu toll ni benn ndëggu noonu lay def di wàññeeku weer yi muy wàññeeku ba toll ni benn ndëggu moom keroog zawal gi wa zaalikulul fi shahri dégg nga buuna ci weeru buuna wa shahri abib ak weeru abib dégg nga foofu benn ndëggu lay doon su ma yaaxusu mu commencé fi ziyaadati ci yokku bu demee ba toll ni benn ndëggu nag day yokkuwaat ilaa yëb loxo ba mu jotaat en aqdaamin fukki ndëggu fi chari kii xakk ci weeru kii xakk kama marra comme nu rombe kon foofu ci misra keroog zawaal gi léeg-léegi mu toll ni fukki ndëggu li dalee benn ndëggu ba fukki ndëggu ci lay toll ci kem weer weer wu nekk ak li muy ak nga kii xakk <coughs> mooy tolloog weeru novembre dégg nga Touba di décembre dégg nga Amchir janvier noonu lañ ko toppee ba mu jeex dégg waxat rumisa juñu nañ ilaa xaayati zilli zawaal yi ci doyob keroog tusubaar gi waax yi ak nu muy commencé fi naq si si wàññeeku ilaa yëf xaw mu des minu ci moom xadamun benn ndëggu waax yi ak nu muy fi ziyaadati ci yokku ilaa jeblox ba mu jot xaayatoo doy toloo fukki ndëggu bandum ñenn ñi ñenn ñi juñu ko bi xurufin ci araf yoo xam ne tontawo danañ ko xalamee bi xisaabil jumali ci kalkin eh, denga <coughs> kalkin numéro yi waaye ñoom mooy eh, taa zaaha ak jiim ak baa ak alif ak alif ak yaa ak taa ak daal ak waaw ak xaa ak yaa taa gi juróom-ñeent la mu nekk juróom-ñeenti ndëggu juróom-ñeenti ndëggu mu waxoon na ne ci cheikh Tuuba la koy doon léeg mu nekk zaay juróom-ñaar la léeg mu dem ba juróom ñaar ndëggu ci weeru am siir la koy doon léeg-léeg mu nekk juróomi ndëggu haa juróom la léeg-léeg mu nekk ñetti ndëggu ci jiim bi léeg-léeg mu dem ba ñaar ba ba nekk benn dégg nga léeg eh, waxoon na ne ci weeru bu una lay nekk benn weeru abib tamit day nekkaat benn alif googu benn la <coughs> dégg nga noonu lay continuer waatee ba nekkaat fukki ndëggu ci yaa googu noonu dana wàññeekuwaat ba nekk ñeenti ndëggu mooy daal gi dégg nga waa gi juróom-benn la zaay gi mooy juróom-ñaar waaw gi juróom-benn la dana dem ba mat juróom-benn dëggu xaa gi juróom-ñett la maanaam <coughs> dafa bëgg wax ne diggante benn ba fukki ndëggu ker gi ci noonu lay toll waaye waxaasa lii ñu wax nag bi nisbati li diyaari misra mooy waa ci kem waa réewu misra waa réewu misra ñooy toll noonu <coughs> waa ma bi nisbati waaye kem li bilaadina suñu réew yi bi suudaan ci suudaan bu dee ñun suñu réewu suudaan yi la faqad yanqusu mën naa mu wàññeeku an hasil maqadir ci daraja li qurbiha ngir jege gi mu jege min xatul istiwa ci xatul istiwa mooy nga xamee ni dégg nga <coughs> dafa jeg eh, eh, eh, dafa nekk ci digg jant bi ñun suñu réew dafa jege xatul moo waral ker gi mën naa bañ a toll comme nii guddee comme nii ci côté Soudan yi faqad segg na zilu zawal keroog tusubaar gi wadabatu mu takk ko bi nisbati ci kem li haasiri bilaad ñeel bi la réew yi la réew cheikhuna suñ sëriñ al-allaama ahmad bun haaj humayda attantaawi rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm moom segg na eh, keroog zawaal gi ni muy toll li anoo moom kaana nekkoon mu tafannin di aji fannu fi ulumin ci ay xam-xam shatta yu teqalikoo mina bokk na ci ilmu tawqiit xam-xamu biddiw yi maanaam yi moom amoon nag euh, xam-xam ci wàllu kawnu bi ndax lii foo nga am xam-xam ci côté kawnu bi door man mën koo segg bu baax a baax xam weer wu nekk nu muy toll nuy ker gi toll <coughs> bu dul ñoom ñoo la ko mën a leeralal boo béyee na mu leeral ku nas ci way fa bi kii xag ci weeru kii xag di bi sittin juróom-benn dëggu lay nekk wa awali tuuba benn tuuba di décembre xamsun juróomi ndëggu la wa xumusaan ak ñaari xumus atat dikk na maxsuuba di luñ kalkin weeru kii xag juróom-benn ndëggu weeru tuuba di <coughs> dégg nga <coughs> eh, eh, kukki ak mooy novembre tuuba di décembre moom juróomi ndëggu doon ak ñaari xumus hmm? dégg nga <coughs> waar bawun ñeenti wa xumus ak xumus am siir weeru am siir weeru am siir ñeenti ndëggu doon ak xumus am siir mooy janvier wa burmuhaat weeru burmuhaat salaasatu ñetti ndëgg lay doon taxriir yu ñu segg burmuhaat mooy février ñetti ndëggu la waaxit benn wa arboon ak ñeent wa ñeenti xumus baramuda weeru baramuda <coughs> baramuda bu ñëwee benn ndëggu lay doon ak ñeenti <coughs> xamus xumus baramuda mooy mars fa xus jël ko bil xiyaas ci xiyaas waaxitun benn ndëggu doon wa xumus ak xumus bashansa ci weeru bashansa li weeru xibtiira ci ñoom weeru bashansa benn dëggu lay doon ak xumus bashansa mooy tolloog avril xus ku jël ko mu rattaban di toppalante adaaka yàlla na la jéggi alabsu bépp lënt dégg nga arbaatu axmaas ñeenti xumus lay doon bawu na ci weeru bawu na atat lay dikkee atat dikk na arbaatu axmaas di ñeenti xumus bawu na ci weeru bawu na mooy mai دين <clears throat> ومثله كمم أبيب ويرو أبيب دي آه، زوين موميت موك بقونا دي مي مي أك زوين فوفو نينتو خموس ليدون فدري خمال ما سبت لنا خمني لنا خمني سخنا دين ومسر ويرو مسر مثل بشنسة كم بشنسة بشنسة لن يخون بين خموس آه، بين لغو خموس masara it noonu lay doon benn ndëggu lay lay lay doon ak xumus eh, mooy mooy zulier eh, zulier moom it benn ndëggu lay doon ak xumus faalam xamal loolu wa tuut weeru tuut <coughs> dégg nga eh, misla baramuda comme baramuda baramuda lu ñu waxal moom lay doon dégg nga benn ak benn ndëggu ak ñeenti xumus tuuti noonu lay doon mis moom faax ku ko na nga ko xereña wa baaba weeru baaba mu maasirun aji tolloo la li bar li barmahaat ñeel barmahaat dégg nga weeru baaba mu barmahaat ñoo tolloo barmahaat mooy lan mooy ñetti dëggu lañ lañ ci waxoon baaba noonu lay toll xaatuur ka am siir comme am siir lu ñu waxoon ñeenti ndëggu ak juróomi xumus xaatuur noonu lay toll fa xusu na nga ko jël bi ci ak sax <clears throat> kon weer yi noonu lay noonu lay noonu noonu noonu noonu lay kiiwee dégg noonu lay keroog zawal gi di yokkoo ci weer yooyu nga xam ne weeru xibti la intaha jeex na wa man araada ku bëgg a yéen taxaqa mu hóorlu zaalika loolu minal ko ñi nga xam ne ñu hóorlu lañ fële taxara na ku bëgg am lu ko gën a leer nag ci ñi nga xam ne xam nañ ci wàllu jant beeg yooyu ni muy demee ak kër gi li muy yokku na dem ci ñooñu mu daal di gën a leerlu <coughs> waalam xamal am na wala am baam xat laa yabqaa léegi-léegi du des li zawaali ñeel tusubaar gi zillun ker aslan ci cosaan léegi-léegi bu tusubaar jotee ker sax du am wa zaalika loolu bi makka ci makka la waa nu mu tuddati uh, zabida ak zabida marate ne ñaari yoon fi sanati ci at mi ñaari yoon ci at mi makka ak zabida uh, uh, jant bi ker gi du des dara وي مدينة المنورة تي مدينة المنورة مرافا بين يون في سنة تشادمي مدينة المنورة أمنا يون وخمة تشادمي كرغو جس دارا ومم أطول أيام يا موغن غودي تي فاني ومحل أفضلية أول اختياري بربو غنن جيل بين المختار في غير وقت الظهر تي وقت الصبار زمن اشتداد الحريص جمن تك تانغورا دينغا مانام بو ني نجلي تي جيل بين المختار مو غن موي بو تانغور بوب waaw maa huwa waaye bu tàngee bopp <coughs> fa yu axaru danañ ko yéexee li rubil qaamati ba sa ñeent ba sa kaaru taxawaay ba maanaam boo demee ba sa ker mat la mat sa ñeenteelu xaaj boo xaajee sa bopp ñeenti xaaj ker gi bu tollee ni benn xaaj ba rek su boobaa lañ bëgg julli lañ bëgg nga julli tusubaar waaye bëgguñ bu tusubaar jot nga julli ndem daa tàng bopp woyu zaaru danañ yokk li siritil xarri ngir teg tàngoor bi li nis fiyaa ba ci genn wàllu xaaju nit ki <coughs> boo bu tàngee bu ëpp xaaral ba sa la nu mu turati ñaar nga door a nga doora a eh, eh, ba sa xel mat la xaaj bi mat sa xaaj nga door a julli bu tàngee boobu daal yow boo dee <coughs> dégg nga xaaral ba sa kër mat sa genn wàll nga door a julli bu fekkee fukki mètre nga si misaal rek sa ker na mat juróomi mètre nga door a julli su matu solaan julli ak waxtu subaar li maa fi mu watta ngir xadis bu nekk si mu watta mu an an xadis boo xam ne mu an an la muy xadis boo xam ne an nangam lañ ko wax an nangam min xadisi min xadisi Muhammad bun Abdurahman bun Sawban ci xadisi Muhammad doomu Abdurahman doomu Sawban man abi Hurayra jëlee ci Abu Hurayra radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla gërëm leen anna rasulullah ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na ne gestad bu tàngee bu tatee alxaru tàngoor bi fa abridu na ngeen seddlu ani salaat si julli <clears throat> fay na si datal xari naka tatak tàngoor bi min fay xi jahannama moo jugee ci pom jahannama bu tàngoor bi taree na ngeen dulu ci julli ndax te nag tàngoor bi ci uppam jahannama la jugee seddalu ci julli mooy na ngeen xaar ba mu sedd ngeen door a julli bu dee tàngut bopp xaaral ba sa ker mat sa ñeenteelu xaaj bu dee tàng na bopp xaaral ba sa ker mat sa ñaareelu xaaj nga door a nga door a e, julli dégg <clears throat> suma taali topp lu toll lu topp dégg nga muxtaaru asri mooy muxtaaram takkusaan tusubaar <clears throat> fi yem wax na ko wax li aju ci wàllu këru zawal gi waaye nag ci weeru xibte yi weer waa misra ci la ko takk <clears throat> mu ne bu tusubaar jeexee mooy bu sa ker tolloog yow doo ci boole nag ker gi nga xam ne bëjant bi fenk daf koo jéngaale loolu xoolal rek jamono bay jant bi fenk ker gëm ànd ak rek loolu xam na kerek zawal gi noonu la toll loolu doo ko ci boole boo ba sa ker tolloog yow nag fa la muxtaaram tàkkusaan commencé loolu la wan suma taali topp li méng <coughs> muxtaar asir muy muxtaaram tàkkusaan wa daruri zuhri daruri tusubaar mu ngi commencé bu sa ker tolloog yow di di firaari ba sa gelek jant ba maanaam bu sa ker tolloog yow ba sa ker mat la ñaar wala ba jant ba gel mel ni luy lakk mburu loolu nag du jëmmi jant bi ngay xool gis ko mu xonq mel ni luy lakk mburu waaye fee jant bi di tàppe ci ker yi ci miir yeeg yooyu foofu boo ko xoolee dangay gis mu xonq mel ni luy lakk mburu su boobaa danuy eh, muxtaaran tàkkusaan moom ni mu waxee darul tusbaar jeex na waaye darul tusbaar daal mën ngaa jàpp ne timis la moxtaar bi moxtaaram tusubaar moxtaaram tàkkusaan moo commencé bu sa kër toll ak yow ba sa kër mat la ñaar wala bay jant bi di gel ñoom ñaar ñëpp seen daru yu dem na ba timis moom nag ni mu waxee daru yu tusubaar bu jant bi gelee rek maanaam sa kër mat la ñaar fa lay daru yu tusubaar di jeexee moxtaaram tàkkusaan tamit foofu lay jeexee moxtaaram tàkkusaan commencé bu la sa kër matee ñaar ba jant bi so waaye mën ngaa jàpp ne <clears throat> daruri tisbaar ak takkusaan yëpp dem na ba jant bi so waaw maa kii laay wax daruri moom dafa jàpp ne daruri tisbaar bu jant bi gëree fa la yem muxtaaram takkusaan it bu jant bi gëree léegi daruri takkusaan moo commencé bu jant bi gëree ba jant bi so waaye mën ngaa jàpp ne ñoom ñaar ñëpp ba jant bi so <clears throat> ashrikuma na nga leen bokkaale bil qadri ci kem ñeenti rak tusubaar ak takusaan ñu bokk nañ ci waxtu muxtaar ñeenti rak bokk gi nag ndax ci mu jëkk xaama gu njëkk gi la wala ci njëlbeen xaama gu ñaare gi wuti nañ ci <coughs> maanaam bu demee ba tusubaar des ñeenti rak fa la takusaan commencé wala boobu bu takusaan commencé foofu tisbaar am na fa ñeent rakk yoo xam ne muxtaar la loolu lañ wute ñoom ñaa daal bokk nañ ñeent rakk yoo xam ne nii waxtu muxtaaram tisbaar la muxtaaram takkusaan la ndax li bëgg a wax nag bu demee ba nga xam sa kër tolloog yow ñeenti rakk rek la fa la takkusaan commencé waaye loolu waxtu tisbaar la gaa mais fa la takkusaan commencé wala li ñoo boo ne sa kër ba pare ñeenti yu njëkk yooyu yooyu muxtaaram tisbaar la muxtaaram takkusaan la loolu wute nañ ci <coughs> dégg mu ne su ma taali topp lu méng muxtaar ansri mooy muxtaar takusaan wa daruri zuhri daruri tusba li isfiraar dem ba jant bi gel <coughs> su ma taali topp lu méng ay ataay moom lu topp li ixtiyaari zuhri ñeel muxtaaram tusbaar bilasqihi sës ca moom muxtaaru asri mooy muxtaaram takusaan li sës ci muxtaaram subaar mooy muxtaaram takusaan woowu moom mi aaxiril qaamati ula mu ngi jugee ci mujj ak qaama bu njëkk ba ila aaxiril qaamati saaniya ba ci mujj ak qaama bu ñaareel ba mujj ak qaama bu njëkk ba qaama mooy sa kër tolloog yow bu ñu waxee mujj ak qaama bu njëkk mooy bu demee ba nga xam ne des sa kër tolloog yow ñeent rakk rek ci xaj. ndax foofu la tàkkusaan dugg wala boog bu sekkee tolloog yow waxtu tàkkusaan ñeenti rakk yu njëkk yi si tàkkusaan ndax foofu la tusubaar dugg kooku lañ wutee waaye kon dana nekk darur yéen di waxtu darur li salaati zuhri ñeel jullit tusubaar ilaa waxtu yi ba ca waxtu gerag jant ba <clears throat> darur yi tusubaar mooy fu muxtaaram tàkkusaan commencé bu sekkee tolloog yow ba jant bi di gel jant bi di gel mooy bu demee ba fii jant bi di tàppee xonq luy lakk mburu wala boo bu demee ba euh, saker mat la ñaar <clears throat> moo tax wa loolu bi an yasirata mooy mu mujj zillu kulli cheyin kerek leen lu nekk mislihi di ñaari kemam ne waa xam lu nekk saker mat la ñaar rek foofu la jant bi di gëlee ay qadru xaamat yi di mel ni taxawaayam maratee ni ñaari yoon <clears throat> ndax boobu kere dañuy yokk di gën a gudd rek waaye dara lu tisbaar dem na ba jant bi so asik huma nag leen bokkaale bil qadri ci doyo maanaa maanaa bu ànd kulan na lépp min salaati zuhri si julli tisbaar wa salaati wa salaati al asri ak julli takusaan tusaariku dana bokk ak saahibataha andoram fii waqtiha ci waxtam al ixtiyaari buñ tànn bi miqdaari arbaati rakaati ci gëm ñeenti rakk tisbaar takusaan ben mu nek bok nak ak morom lu tol ni ñeenti rak wal istiraq ndax bokkaate ga fi al qamati ula ci mu jek taxway bu njëkk ba aw awli saniyati wala bok ñel ben taxway bu ñaareel ba khilafun wutee la fil mazhabi ci ngir mi ndax ci mu jek tusbar la taksan am ñent rak wala si njëlbeen tàkkusaan la tusbar am ñent rak wutee nañ ci waale yi boo sukkandikoo ci lolu fa law bu jilon ala salatu taksan في آخر القامة الأولى تموجك تخوي بنجك وما نمت وقت تصبار تموجك تصبار بوفي جدون تاكسان بمقدار هذا لن ينتراك كان نك نمو أدين داجي جوخي لا هنيل تاكسان في أول وقت تاس نجل بين وقتهم الاختياري بنتان ولو صلى بجلون الظهر تصبار في أول قامة الثانية تنجل بين التخوي بنجال وما نمت تنجل بين تاكسان كان نك نمو أدين داجي جوخي لا هنيل تصبار في آخر وقتها تموجك وقتهم al ixtiyaari buñ tànn wi ay ren ba ay ba ba tey dégg nga <coughs> parce que ñoom ñaar ñoo bokk ñoo bokk waxtu dégg mu ne min al xurubi maxribun jullik minal xurub bi muy commencé ci bu jant ba soxee <clears throat> timis muy commencé bu jant bi soxee bu jant bi soxee fa la muxtaaram timis commencé fa day dayiq nan ko xatal bi qadri chartin <clears throat> ci kem charta aw maghribi shafaqi wala ci fàddu shafaq waxtu timis dafa xat la fa xaj mooy sarta julli looloo fa xaj maanaam boo jàppee julli muxtaaram timis jeex na wala boog bu dee sangu la war lu toll ni sangu julli loolu mooy muxtaaram timis <clears throat> moo tax mu ne fa day nañ ko xatal bi xadari sart ci kem sart aw magribi safaq wala faddu safaq ga lu toll ni sart rek la moo ci xaj am na ñu ne déedéet dem na ba safaq ga faddu loolu mooy aw magribi safaq am na ñu ne muxtaaram timis dem na ba gaye di waaju jot <clears throat> dégg nga kon timis dina am ñu daam ñu ne bokk buñ ko jullee ba pare rek moxtaar ma jeex na ñu ne déedéet dem na ba gaye di jot <coughs> ay annal waxtal ixtiyaar yi nag waxtu buñ tànn di li salaati maxrib ñeen julli timis minal xurub bi mu ngi commencé jant bi so ay yëpp tëriw dana commencé min xurub bi xursi samsi si soog jëmbi jant bi kulli lépp wala ibrata duñ faale bil bayaadi ci weex weex alasi yi nga xam ne baax doo mu ngi ca gënnaawam <coughs> dégg nga muxtaaram timis mooy bu jëmmi jant bi duggee jant bi bu duggee na fu mu nekkoon mën naa weex weex weex yooyu doo ko faale moo tax mu ne duñ faale bil bayaadi ci weex weex allazi nga xam ne baadu nekk na ci gannaaw soog jant bi bu jant bi duggee rek timis jot na kum fekkoon nga dog nga xoor mën ngaa dog kum fekkoon julli woo mën ngaa julli fa dayax na ko xatal ay foofu moom mu dayaxu luñ xatal la xëy mu tëdd nekku luñ tàllal ñu xadaru lañ nattale bi fin ci jëf ko dégg nga moom timis baada taxsira shurutiha gannaaw amul ay sartaam min taharati xabasin te mooy laab ci sobe wa taharati xadasin ak laab ci toj wa satura awratin ak sutura awra wa siqbaari xiblatin ak juubi xibla waxtoom daal li ci xaj mooy loo xam ne mën nga see laab ci sobe laab ci toj maanaam dindi ci sobe sangu ci farata suturaal ci sawara jublu xibla daal di julli loolu mooy waxtu timis waa daal yow moom almashhur mooy lu gën a siw wa qiila wax nañ ne yam tëddu dana tàllu muxtaara muxtaar ma ilaa xurubi shafaqi ahmar ba ci fàddu shafaq gu xonq am na ñu ne muxtaaram timis dem na ba euh, shafaq gu xonq gi fàddu maanaam ba gaye dugg kon kon am na ñu ne timis muxtaaram mu ngi yem ci gaye xataa ñu ko xatal tamit <coughs> boo xoolee xatal gi xaw naa yaatu tuuti parce que bu fekkee dañ laa may digg boo xam ne nii war nga see mën a dindi sobe laab si toj laab si toj li si gën a gudd mooy sangu farata nëbb sa awra julli ci loolu boo xoolee gàtt noonu parce que ñaari jumaa yëpp day fekk timis ñoom lii def nañ ko ba pare dañu noonu rek julli <coughs> waaye waxtu wi dangay xool digg boo xam ni nit ku takk sobe war na see mën a raxas sobeem war see mën a sangu sarat daal di sol ay yéreem julli digg bu toll noonu tamit gàttul bopp nag Hmm? kon timis bi tamit niñ ko gàttalee eh, niñ koy waxee noonu boo xoolee dafay mel ni lu gàtt gàtt bu ëpp mais boo ko seetloo da nga xam ne gàttul bu ëpp bu fekk ni ñu pare rek moo tax ñu gaaw a sëlmal waaye gàttul bu ëpp <coughs> ndax war nga si ma raxas sobe sangu ci sol ci yére julli ci am na ñu ne déedéet timis sax dem na ba bi sa wax gi fàddu maanaam ba gee jot. ولا ذلك تي لول لجن نان ويكر كربي قولي أو مغيب الشفق ولا فاد الشفق وأتى ديكنا او تي أو لتنوين الخلاف غير خيتل ووتيغي الواقع باجي تابي في المسألة تي مسألة مي <coughs> وقوله وخم جملة وقت الإنشاء وقت الجاي دينا من وقت الإنشاء وقت الجاي منو توكي سي بو شفاق كي فادو لي sulisin bas نيتلو xaaji غودي غو خامني قديما جيتال نانكو gaye muxtaaram mu ngi commencé bu xonq-xonq jant bi duggee lan mooy bu xonq-xonq jant bi duggee mooy fi jant bi nekkoon bu foofu duggee dégg nga <clears throat> nga xam ne ni jëmmi jant bi lépp dugg na xonq-xonq yooyu doon des bu jant bi duggee dugg na ndax bu jant bi sooyee daa may xonq-xonq yu nekk foofu konk-konk yooyu bu demee ba dugg gay jot na fu mu yem mooy boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu njëkk yi bu jeexee rek jeex na ay guddi gi fukki waxtu la ak ñaar kon ñeenti waxtu yu njëkk yi bu jeexee jeex na moo tax am na ñu ko yemale minuit parce que bu dee guddi gi huit heures la commencé maa joxe rek bu dee huit heures la commencé huit heures neuf heures dix heures onze heures kon minuit lay gay moxtaaram gaye di jeex bu dee sept heures la commencé nag onze heures lay moxtaaram gaye di jeex dangay xaaj guddi gi ñetti xaaj daal ñetti xaaj njëkk yi mooy ñeenti waxtu njëkk bu jeexee rek muxtaaram ngay jeex na maanaam maanaam wa annal muxtaar naka waxtu wuñ tànn li salaati insha ñeel julli gaye min hu tukkee ci gaye ay maribu shafaqi min hu tukkee na ci gaye ay maribu shafaqi faddu safaga ay yëpp tëddiwu dana commencé من مغيب الشفق الأحمر تفادو الشفق غونك لا مختارم جاي مي كوماسي شفادوك الشفق غونك لا ولا عبرة من قلم بالبياد تي ويخ ويخ الذي ينقمنا بعده ينك تي غناهم ويخ ويخي duñ ko konté manam bu jant bi duggé fofu dana wéx wéxay bobu jëru ngay xaar <coughs> bu dugg kon kon ko bu duggé re baana wayam tëdd dana tàmbal dana tàllu ileen tixaayi suy si ba si jeex ak ñetteelu xaaju guddi gu njëkk gi ñetteelu xaaju bu jeexee rek fala yem fala yam yem fala gaye muxtaaram gaye yem fa man salla ku julli al isha gaye baada ma muxiyat gannaaw buñ faaree al umrat xonq-xonq alati ba nga xam ne yéemu min baqaaya shuaay samsi mu ngi bokk ci ndesitu ceeneelu jant bi fi jihatil maxrib ci wàllu soowu bi maanaam bu jant bi duggee xonq-xonq yooyu daal di effacé wu ba jeex tàkk nga julli gaye ku def loolu faqat addaaha joxe na gaye fi awali waxtiyaar si njël benn waxtum al ixtiyaari buñ tànn ku def loolu julli na gaye ci muxtaaram laakin waaye na yustahabu sopp nañ taaxiiruwaa yéeqal ko xalilan lu néew qadar ma maa yazulu kem li nga xam ne dana ci mën a dañ al bayaadu weex-weex alaji bi nga xam ne baada shafaqil ahmar gannaaw nekk na ci gannaaw xonq-xonq jant yu xonq yooyu maanaam dugg xonk-xonk jant bi bu xonk-xonk yi duggee naxaar ba foofu day weex weexaay boobu naxaar ba mu dem moo gën mais teewul bu ko jullee foofu rek baax wa minhu <clears throat> tukkee na ci ñetteelu xaaj gu dugg njëkk gi bu jeexee lil fajri ba fajar daruriyun waxtub lor fii ci ñoom ñaar waxtub daruri ci timis muy commencé buñ jullee ba pare wala boog muy commencé bu safax gi fàddoo mooy bu xonk-xonk jënd bi duggee boo jàppee su ñu ne muxtaar dem na ba safax fàddu <coughs> ba fajar kon daruri timis fajar la am daruri gaye muy commencé si bu ñetteelu xaaju guddi gu njëkk gi jeexee ba fajar a damiru damir gi fii minhu ci minhu raajoon aji dellu la <coughs> lintihaay sulusi léegi si jeex ak ñetteelu xaaju guddi gu njëkk gi almafum bu ñu dégg min xawli ci waxam ne suul sin bas ñetteel xaaji guddi goo xam ne xuddi maa jiital nañ ko waaye wa min wu tamit mën naa dellu si bu ñu julee timis ba pare wala si safax ga mën a dellu si ñetteelu xaaji guddi gu njëkk bu jeexee si tegtalu wax ngi wax ne fii fiihima su waxee ne wa minhu ñetteelu xaaji guddi njëkk bu jeexee ci namu kon dafay mel ni moxtaaram timis daruri timis muy commencé si ñetteelu xaaji guddi gu njëkk bu jeexee te fekk demeewul noonu moo tax moom minum googu mën naa dellu ci dalilu timis mais moom minhu dari bu dee si dalilu timis muy commencé buñ jullee wala bu safax gi fàddoo li fajiri ba fajar wa minhu dalilu gaye muy commencé bu ñetteel xaaju njëkk gi jeexee li ba fajar parce que darur yu fii maa la wax ñoom ñaar kon wa minhu mën naa dellu si ñaar yëpp <coughs> ci kem ni nga nattalee rek ay anal waxtu daru nag waxtu loolu li maxrib ñeel timis wa insha ak gaye maan mboolem seen yëptat bu day commencé min nihaayati sulusi leyli awali min nihaayati sulusi awali si jeex ak ñetteelu xaaj bu njëkk mais ci guddi gis nga nu mu ko firee sax wayam tëdd mu tàll loolu fajar ñeen fajar <laughs> kon kanaa kon léegi moxtaaram timis moom buñ jullee ba pare diggante boobu xam nga waxtu ñaari waxtu ram daruri ak léegi mu ne daruri timis mu ngi commencé ñetteelu xaaj guddi gu njëkk bu njeexee ba fajar moo gaye yëpp léegi bu ñu jullee timis ba pare wala ba safax gi fàddoo diggante boobu ba ñetteel xaaju bi bu njëkk bi doon lan la si timis moom du moxtaar lu dara ngaa jàpp la nga doon njëkk a rek <coughs> wala tur dana tàll li ba fajar ay li ba fenk ak loolu li ko yóbbee mooy delloo gi mu delloo minu gi ci ñetteelu xaaju gi dugg njëkk rek bu ko delloon si ñoom ñaar iskaliye bii du ci am foo maa ñoom ñaar mustarikitaan yu bokkaate lañ fii ci waxtu daruri ila qurbi tulal fajri ba jege fajar karak fajar bu demee ba fajar des nag <clears throat> ah lu mat ñetti raaka foofu moom gaye gi rek moo ko moom du daruri gaye rek la tusubaar ak taksaan bu demee ba jant bi soo des lu mat ñeenti raaka kooku taksaan gi rek moo moom fi saa daa xanim xat waxtu waxtu baasu su laay so nga xam ne du xaj ilaa salaas rakaat lu mooy ñetti rakk rek nga ci mën a julli faaqala mbaalu ko gën a néew ixtasa dafay jagoo bi axeer si julli gu mujj gi mooy gaye wa saarat mujj mu mujj al maghrib timis mi yasiri fuwaayit di bokk ci wéy yu faal kon boo demoon ba li des jant bi soog di des fajal jot ñett rak nga ci mën a julli wala ñaar wala benn su boobaa xamal ne timis gi moom waxtoom génn na moo gaye gi bokkutuñ wax soo njëkkoon julli gaye dooru julli timis jamono boobu da am bakkaar waaye julli gi baax na parce que bokkutuñ waxtu timis waxtam dafa génn dégg <coughs> waaye nag lu ñu ñàkk-ñàkk bokk waxtu comme que timis benn waxtu rek la kon si way néewi faati la bokk timis nga war a julli dooru julli gaye gi boo njëkkee gaye gi nag door si yëg timis baax na waaye am nga bakkaar ndax da ngaa bàyyi toftale way néewi faati rek وين واجب دي لو ورنا ترتيب وا متفترت وا متفترت وكم مال حاجات عندك بتاوي دي لو فور جولي تيميت دو جولي جاي ولو خرج دي لو يجين وقتها وقت جاي وفائدة ذلك نجرني لول أنو أنا مم إن قدم نم جيتنا المغرب تيمز على إنسان شجع في تلك حالة تجيبوا من كما هو كم نيا كمان لول الواجب مول ورا عليه تيمم <coughs> دينا kamaaw comme ni nga xamee loolu alwaajib mooy lu war a alay ci moom axrama dafay xarmaal bihaa ci timis bi neetil xadaay ci yéen fay li xuruji waxtu yaa ngi génn waxtoom ak daruri bi këjëg daruri bu doon julli timis boobu day fay la yéene na waxtoom génn na te subaara takkusaan tamit noonu wa zawaal ak dañ ak bokkaate gi ndax bokkatuñu waxtu وأحرم محمد بن ساسي جاي بنية القدايشين في ألم بتاي لفوات وقتها غير فات وقتهم بتقدم المغرب شيء تلتمس عليها كمهم نعم بجيل تلتمس وفر رك نتراك نتراك إحنا كون جاي إيه، مم وقتهم جننا نعرف دلنا يرين كما إن خمي وين قد ما نم جيتنا أنا جاي <clears throat> على المغرب شيء تمس وحال تنبير لي لن يتراك رم ولا نعرف بين ويرنا لين جاي وينك بوا جاي day yéene julli gu teew parce que waxtum génnul waaye wa asima bàkkaar na ko am bàkkaar ndax way ne yu faati toppalante leen dafa war dafa waroon julli timis doo julli kay wa li fawaati tartibi ngi faat toppalante baynahuma seen diggante su ko defee timis gi moom rek lay fayaat <coughs> dégg nga waaye gaye gi du ko baamuwaat ndax toppalante gi raw na li fo li bi waxtu ci génn waxtu ba bu julee timis ba pare bu julee gaye ba pare doo seet ak timis ah day fekk day fekk waxtu gaye bi raw bu julee timis kon jël muy baamuwaat gaye ndax bu ñuy wax nga baamuwaat yi waxtu bi génnul la ndem bu njëkk bi baax na rek baamuwaat bi dañ koy sopp te bu waxtu wi génne jëlul baamuwaat wakasaa nag nii xaal la ñuy wax fi zuhri tusubaa wala asr ak takusaan mën nga koo jéem a réglé waaye takk-takk bi mooy tusubaa it ak takusaan bu dee lees jant bi so ñeenti rakk dong la xamal ne tusubaa gi moom waxtam génn na ñeenti rakk yooyu takusaan gi moo ko moom kon su boobaa da ngaa war a julli tusubaa teg si waaye ñaar yëpp da yéene fay boo njëkkee takusaan teg si baax na waaye am nga bakkaar mais jërul ngay jërul ngay ngay koy baamuwaat boo jullee subaar jërul ngay baamuwaat takkusaan ndax waxtu mu génn na te waxtu bu xasee génn ko kon <clears throat> weeru xibte yi daal mooy noonu tuuta mooy tolloog août baaba mooy tolloog septembre dégg nga xatuur mooy tolloog octobre kii xaj mooy tolloog novembre Touba décembre Amchir janvier Barmahat février Baramuda mars Bachencha avril Baouna mai Habib mm, mm, juin Masura juillet léegi yooyu mooy weeru xibti yi weer wu nekk nuy jant bi toll keroog siwaal bi wax na ko waaye nag mën nga ko ñàkk calculer suñu réew yi parce que loolu weeru xibtéere waaye ci réew mi misra yi la wax ñu ci réew mi nag il faut ku xam lu mel noonu xool weer bu nekk nuy kër gi di toll in uridu lislaam astantuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu